ñëw jox ko caabi ci dugal fii. amul dara loo xam ne nii bàyyi nañ ko bàyyi ko bi gis nañ fooy mi nga xam moom lañ ko dindee man lii moom tamit gis nañ ko vraiment lii dina nekk na loo xam ne nii di naaw la wax ba ci maire yi. waaw.

mi ngi nii bureau bi lañ jël bureau fii mooy comptoir bi fii la ñu traité taxi yi. Mm-hmm. fii la ñu traité état acte état civil yi. Mm-hmm. kuy déposé fii ngay ñëw fii la ñu fii la ñu leen di rendre léegi fii la ñu rendre impraticable mi ngi nii. ban heure lañ fi ñëw. je ne sais pas damaa julli ji àjjuma rek gis nañ taxaw ma ñëw gis li comme ça. mais kon yow heureusement nee nga mairie bu Mbacké dañoo informatiser seen mbir yi. kon yàlla mën na def. dañoo informatiser depuis 2013. d' ailleurs depuis 2016 ñu ngi fonctionné ak benn logiciel boo xam ne ERA la gouvernement Sénégal moo ko jox euh, plus de 80 communes ñun ci lañ bokk. Mhm. depuis 2016 ci lañ liggéey donc 2016 ba léegi lépp lu liggéey ci acte ci Mbacké. Mhm. ñu ngi ci serveur bi heureusement que jël nañ précaution man denc naa ko. Mhm. ak les machines yi xam ne moom la liggéey. heureusement kon loolu demul. yàlla aussi def na la salle des archives n'a pas été touchée kenn aussi police tamit teel nañu intervenir ñu ngi leen di sant bu baax. sinon dana bi ah tur bi tur yaakaar naa li ñu war a ñuy wax dañu bëggoon ñu may ñu constater li fi am ba pare mais comme vous avez dit hein, on a déjà informatisé presque une bonne partie des fichiers et qu'on avait prévu ce matin d'ailleurs ñu jël machine bi nga xam te moom mooy bi serveur bi génne ko à la mairie pour que au cas où les mu bañ a impacté dara si ñi nga xamante ni ñoom seen euh, si si registre bi nga ne du am problème de toute façon loolu moom sécuriser woon nañ ko déjà déjà déjà on avait également avisé les autorités policières pour que ñu bàyyi ci xel ci ci ci mairie bi. jërëjëf. waa laaj li toolu dëri nekk ci gaar bi la gis nga ni ko booy def. waaw terrain gare bi quoi ci territoire yooyu la quoi loolu gars yi daal di